Macky Sall jàpp na ma jàpp na Ahmed Aïdara jàpp na Guy Marius Sagna jàpp na beaucoup de militants et sympathisants yi nga xam ni ñoo ngi nekkoon ak ñun mais loolu na xam ni du dara te maa ngi ciy dellu soit léegi Sénégal tolluwul fi nga xam ni dañu war enlever ay opposants di leen yóbbu en prison mais c'est que Macky Sall dafa xamul luy prison moo tax pour moom dangay ngay jëlee yóbbu prison. ngeen may ma aussi ma gërëm sama xarit prisonnier yi ma am biir prison de Rebeuss biir prison de Sébikotane vraiment am naa fa ay xarit yu bare parce que li président Macky xamul mooy ñun jàngal nañu environnement boo ñu yóbbu ñu adapté wu. c'est ce qu'on appelle dans l'armée les stages de vie et de survie foo ñu mën dugal ñu adapté wu ak l'environnement. et vraiment trouver fa ay prisonniers yu xam seen bopp yu bëgg Sénégal yi nga xam ni ñoo doon nekk tous les après-midi à partir de 17 heures 18 heures ñooy fubalandoo ci terrain ba d'ailleurs maa ngi am benn góom fa laa ko jëlee moo tax may soox un peu ñooy fubalandoo donc on était bien lii mu def au contraire daf ñu gën a motiver dafa gën a renforcer suñuy conviction ci li nga xam ni moo war suñu diggante ak sénégalais yi kon di rassurer sénégalais yi que six mois avec sursis deux ans avec sursis sept ans avec sursis je ne serai jamais en sursis dans ce Sénégal-là il n'y a rien qui peut être au-dessus de ma tête pour freiner un seul pas ci samay conviction politique pour freiner une seule seconde ci sama engagement politique na def lu ko neex bu ko neexee suba six mois yooyu na ko exécuté et dignement laay dem supporter tëdd six mois yooyu muy quatre ans dignement laa koy dem supporté tëdd parce que ñooñu ko wër ñëpp muy les officiers généraux les officiers de l'armée de la gendarmerie fi ñu tibbee laa tibbee à l'ENOA fi ñu leen formé lan ma formé et je suis extrêmement fier d'eux et je les salue et je leur transmets toute ma reconnaissance parce que ñoom Macky xamul mais ñoom xam na moo tax bi ñu yeggee section de recherche le commandant maa ngi koy saluer Aliou Ndiaye qui a été très professionnel jël benn néeg dugal ma fa taal clim bi bi MDL bi ñëwee dama ne ko fayal clim bi ubbil fenêtre yi bu ko defee ma jël ci chaleur yi jël ci yooyu préparé fi ma jëm parce que je savais qu'il allait me transférer moo tax sama yaram bi yëpp gis ngeen ay matt tatu yoo la parce que dama dem prisonniers yi mën leen bàyyi leen yooyu jël seen asaka ba mu doyal bu ko defee ñu ma màtt dañu may biiw rek donc pendant 72 heures gars yi màtt ba doyal après di biiw jeex na. moo tax coow li bëriwul ndax sursis bi ñu teg dëcc ku ñu jàpp fii sa buntu siège ci manifestation bu war a am à 4 kilomètres d'ici jàpp ñu la ngay manifester jàpp ñu la nga woote jàpp ñu la nga ñu jàpp la ci condition yooyu kidnappé la yóbbu la ba pare kon wax nañu li tax ñu ne dañuy reporter manifestation bi li leen soxna Aïda Mbodj wax yépp ay raisons yu valable la parce que réew mi ñaar moo fi nekk léegi benn fànn bi dafa am Macky Sall nga xam ne wéet na tey làqatu ci gannaaw police am ak gendarmerie am parce que xam na ni askan wi won na ko gannaaw mu jàkkaarloog ñun opposition bi ñun yoruñu police yoruñu gendarmerie yoruñu gànnaay waaye lii suñu police di suñu gendarmerie di suñu gànnaay mooy askanu Sénégal le peuple mooy suñu police mooy suñu gendarmerie mooy suñu justice mooy suñu ngànnaay moo tax il faut ñuy dégloonteeg askan woowu man waxuma kenn kenn ci Sénégal askan wi laay waxal parce que askan wi moo dem ba xam ni lii yeewi askan wi di leen wa lii mu leen di proposé mooy seen mucc donc man askan woowu laay waxal wootewu ma ndimbal fenn askan wi laay waxal askan woowu nag dañ ko war a dégg di ko déglu askan woowu dafa am lu mu waxtaan ak ñun ci fan yi soxna Aïda cité na ay secteurs yu bari waaye ëpp na loolu mënuñu ko lim fii la ñu jot ñun ci ay message ay appel ay yóbbante ku fi toog rek ci ñun ay junni junni junni la moo tax ñu naan ñu ne faw ñu dégloonteeg askan woowu moo tax li mu wax yépp ci njàng mi ci aji màkk gi ci tabaski bi ci liggéey bi waaye li gën a ñor ci li tax ñu ne nañu xoolaat doxalin bi mooy option stratégique option stratégique nag du fii laa koy développé lépp mais naa ci wax lenn parce que suñuy militant suñuy militant ak askanu senegal ñu ngi déglu gis nga situation bi ñu dund li ñu ci mënoon am yépp am nañ ko ndax Macky Sall bi muy def lii muy def nii jàppul woon ni mun na jur lii mu jur ndax yàgg na fi éliminer ay candidature dara yëngatuwul ma ma dalal xelu Sénégalais yi suñu liste yëpp ñu ngi en compétition am nañu liste nationale moom ay nit la cible mais am nañu une liste nationale mooy la liste des suppléants day dem élection am nañu liste départementale sur les 54 départements 54 départements donc ñun suñu lépp a mat fi mu toll nii lay woon problème am mooy Ousmane Sonko warul dem Déthié Fall warul dem. Habib si warul dem Khalifa Sall warul dem Aïda Mbodj warul dem euh, euh, nu mu tudd Cheikh Youm warul dem ñi xamul li tax ñu doon xeex ma wax leen loolu ki sal su la su lambee mu nooy ñu ne ñëpp woote nañu ñëpp ñaan nañu bàyyi nga xamal ni ma nga ci prochaine étape bi kon won nañ ko ni moomul ni ñi te affaire bu mënul yombee noonu waaye li ëpp solo li ma wax léegi li ñu waroon am ci situation bi am nañ ko muy ñaar yu am solo bu ci njëkk mooy réew mi wane nañ ñi Macky Sall waa réew mi wan nañ ko gannaaw ndax li xew ci casserole yi keroog rek wane na ko Macky Sall na na woote léegi ne damaa bëgg nit ñi génn tëgg casserole bu juróomi nit tëggee mu jaaxal ma te nit ñi joxuñu leen lem menacé wuñu leen loolu wone na ni Sénégal won nañu gannaaw Macky Sall moo wax sénégalais yi nag ni am ngeen occasion ñu dakkal loolu ñu dakkal loolu te bal du ci tàkk xam ngeen fu muy jaare mooy le 31 juillet le 31 juillet ngeen génn voté massivement contre Macky ndax bu ñàkkee assemblée nationale bi dootul wax ci Sénégal boo moytu sax dina takk ay bagaasam balaa mandat bi jeex dem ñi leen di wax ni opposition bu jëlee assemblée nationale réew mi day bloqué ak nangam nang waxuñu dëgg barki Dembo Ndiaye France opposition bi jël na assemblée nationale États-Unis à chaque élection de mi-mandat boo moytul opposition jël majorité bi au Sénat te blockage du am parce que ñun ay responsable lañu waaye dinañu saytu li ñu yoree réew mi yéen ñëpp xam ngeen ni càcc gi bëri na ci réew mi kon ku am kuddu waroo lakk te sénégalais yi am ngeen kuddu waaye waaye am ngeen kuddu buleen kenn ndax ci leneen. ak élection jot ñu sàcc xaalis yu doom yëpp ñëw di leen ko jox naan leen votel leen ñu bu ngeen defee li ngeen war a def nee naa leen mille vingt 2024 février 2024 à 20 heures Macky Sall takk nay bagaasam pare ñu abal ñu ak soxoram ak mën a fayoom ak mën a dóoraateem ak jaay réew mi est-ce que loolu bëgg ngeen ko ma ngay commencer le 31 juillet ci loolu la ñu woo sénégalais yi moo tax ñu ne nag dinañu am lu koy natt liy natt loolu dañoo bëgg lii ñu wax ak sénégalais sénégalais yi tontuñu est-ce que pare nañ pour loolu ñoom def nañu seen concert d'interdiction ñu wax leen ñu lan moo tax du seen interdiction moo tax defuñu de ñu wax leen askan wi lu ñu dégganteeg ñoom lañ ko bëgg a remplacer nag ànd ak mu doon benn référendum ci ñaari question yi ñu wax askan wi benn ñaari question yi ñu wax askan wi benn il faut que massivement askan wi wax ni le 31 juillet Macky dina ñàkk assemblée nationale ci loo xam ne du am lam laame du am contestation loolu dafa am solo ñaareel bi mooy ñu wan Macky Sall ni moomoo réew mi tontu bi ñu bëgg nag askan wi tontuñu ko mooy concert de casserole bi ñu leen di woo ëllëg jeudi ëllëg jeudi. xam nañ ni pare ngeen bu yàgg ñii sax dañ ñëwoon nañ ko def tey waaye nañ ko def ëllëg moo gën lañ ci bëgg nag mooy li ñu amoon keroog dañu bëgg lu ko mat ñett parce que dañu bëgg mu doon message bu gën a forati ci Macky Sall moom dafa bëgg ñu déclencher xeex bi tout de suite parce que ñuy gën a jegee 2024 mbir mi di gën a bon ci moom moo tax muy def provocation yëpp bu dee nag def na lu war a déclencher xeex bi suba suba suba na ñëpp préparer ñu xeex ko parce que mbébétam yëpp mooy nu muy def ba teg loxo ci leader yi am lu mu leen takkal pour préparer inéligibilité pour 2024 loolu rek mooy yitteem ay dossier rébellion fii ay dossier appel à insurrection commando spécial juróomi nit ñu ne ay cocktail molotov lañ doon def ñu ne ñoo ñoo ñoo waroon a taal réew mi tappale yooyu mu def ko ak procureur am boo xam ne safadi na safadi boo xam man keroog bi ma duggee ci tribunal dama rus quoi di interroger ah eh, eh, yow yow sax li tax nga nga sol trait yi ah? ah yow yow nga doon dem ngénte kan mooy dem ngente ak trait yi safadi benn peeru safadi boo xam ne kenn mus koo gis ñu ne kooku mooy procureur Sénégal waaye ñu ngi leen di xaar fii kon c'est pas parce que ñu ngi naan concert casserole que bàyyi nañu yeneen méthode de lutte bu nekk ak fi ñu koy utiliser waaye nañu dànk fanaanal rek parce que natt nañ ko xam nañ fu mu toll